mën a sañse waaye pa ba mën a wéy ku solati vert te du man dañ lay porte plainte ndeysaan Mrs Diadio nama naa la suma taalibe bi ndeysaan Masiré Anta Ndiaye gelelu omoro yi baawo déggal sabar gi li bu daganoon ma fecc borom sekki ñaay ndeysaan nga ne lan baawo nga ne moom bi mu baaxee ba tey lu xew wool ma ko ba woyag ngoone baawoo déggal li <laughs> dama am kersa Ibrahima Cissé moo ñaw li moo ñawal sëriñu nandite yi di ñëwal chroniqueuru nandite yi ba dara gajag borom gulu gulu la uyaay ma pend sekk moom dafa yaru déggal loolu wàccee leen musique bi te soppi ko ndeysaan lu xeere oui ndeysaan nga ne ah te ma woy ko baax borom façon naaru leen gënal <laughs> billaay Pape mën nga woy nga ne ah waaw oh, waaw nga ne di ma woy ko baax professionnel yi góor yi yaa gën a billaay wallaay yéen yëg ne Pape Diop dafa war a dem Sweden ci douze sec gaa ngi koon ba seen biir ne ticket yaa ngay jeex rek ndeysaan la la yàlla terale Saminata ba way yaayam kuy baayam eh Pape mën nga woy sa laaj yu yor yor ya looloo loolu baat ci réew mi su ma jéeg yëpp da ngeen di liggéey ba ne tekk am baat ci réew mi barki sëriñ Bamba ku ma topp doo daal déggal déggal loolu mu ngi rendre hommage ma penn Seck omoro ak yaro xoolal yaru gi du ko bàyyi de yaru gi yaro déggal loolu ndeysaan daf koy yuuxuwaat dëgg-dëgg kii kii day fontu abal ma kaay kaay kaay li ngay woy attanu ko kaay ñëwal ci sëriñ yi xale yi ay saan yow xam nga li dafa neex waaye yow tamit nag ah taal sa téléphone jàkkaarloog sa sëriñ mu sañ sa lu ne muut ba pare teg Pape Diouf muy woy lu rëy ay sa cam xolam sedd na <laughs> non Gose dafa faa si Ahmed Cissé moom rek yéen ñëpp ma faa ndeysaan listen. Um, yaramam tàng na suma veer bi bu dee daf leen jaaxal jas neen rek la téyet bi ñaw ko ku foog ne dafa rafet solal ko golo <laughs> ci man la <laughs> Pape wéy ma wéy ma wéy ma gidecek. Git git gidek gidek git git git gidek. ah. xaaral ma defaru man la Pape Diouf di wéy man lay woo. seen kilifa gi ñëw na. daf yëfu kilifa bañ a yëngatu. dinaa fexe am ngor ba wéy bi duma yëngal. samp rek maintien bañ a fecc bañ a yëngatu ndeysaan jëmetu bi bëri na ndeysaan <laughs> Pape maa ngi nii kilifa wuyu ma wuy ko xale rek jéggal naa la di la bàkk la joobee la sargal lay mama danga dégg ba mama dëgg daa jël à part góor lu jàpp ñàmburam ngay woo ay maamam damay yëngu si tongo bi moom mi jaru ko li ah, bu métti laa nekk di toog nii muñ mbalax ak musique goro ko moom mais comme nii moom du fecc waaw lii mbubb bi la bi moom du fecc moom amal Pape Diouf bi war ngeen am ak moom sérieux problème bàyyee wooy soppe yi bilaay ni ngeen ma bëggee noonu laa leen bëggee lu ko raw ndeysaan duma leen bàyyee wooy Papa Demba ndeysaan maa ngi nii borom maami buureeg wàlli wi dara ji man kenn maa ko moom bokkuma ko waa koñ bi de ndeysaan ca des nu muy mel waaw waaw ah bilaay maa gën a bëgg maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci yéen maa koy nuyu ci turam ak jëmmam nuyu bi nag maa ngi ciy jiital jigéen ñi ci jigéen ñi maa ngi ciy jiital jeeg ñi ci jeeg ñi maa ngi ciy jiital jeeg ji amul jëkkër lan moo tax mooy ñoom jigéen leen jaar neen ci jànq jaar neen ci sëy jeeg leen te amuñ jëkkër métit yëpp daj neen ko bànneex yëpp am neen ko ñoom den mérito respe parce que bi sëy jotee sëy neen bi tas jotee am neen fayda tas neen ñu doon jigéen yu am jom doon jigéen yu am ngor jeeg ji amul jëkkër maa ngi leen di nuyu bu baax a bi ma ci am nag su ma ko doon bind du jeex <laughs> bëri neen lool waaye ñoom nuyu naa di nuyu jeeg yi nga xam ne tamit ndeysaan ñu ngi toog seen biir kër yi di sëy mu métti lool nag maa ngi leen di nuyu am jeeg ju neex la xamuñ lan mooy métti ci sëy ñoom kenn du leen tooñ ñooy tooñ di tàppaas maa ngi leen di nuyu ah góor ñi nuyu naa leen nuyu bu gàtt te simple bu ñàkk xorom kum neex nga fay ma kum naqari nga dem man woowuma leen neexaluma leen euh, di nuyu nante yi ñoom ñëpp nuyu naa leen Ibrahima Cissé téyër la boo xam ne mooy ñawal sëriñu Nantey di ñawal chroniqueuru Nantey muy Badara Gaje yàlla na ma ko yàlla fayal kontaan naa ci moom ku mën a ñawal du ma mën a joxe numéro am parce que bugguma ngeen dem fa mu ñawal leen ngeen di nuroole ak man loolu duma ko mën waaye du ñàkk ma joxleen bii numéro bii ngeen woo ko mu ñawal leen mooy 77 630 51 41 mooy numéro téyër bi ma ñawal lii muy Ibrahima Cissé euh, képp koo gis mu rafet la ñaw rek moom moo ko ñaw euh, Sénégal maa ngi leen di bàyyiloo xel yëkkati kàddu jëmale ci doomu aadama kàddu goo xam ne mën na koo impliquer te la ngay wax dara leeru la ci te maa leen di bàyyiloo xel ne dañoo jàmbat ne réew mi doxut ñu bëgg a soppeeku ñu génnee fi Macky Sall mi nga xam ne liggéey na góorgóorlu na def na indi ñoom jomaay jiital nit di ko fakastal nag bokkul ci lu mën a avancer loo réew jomaay moomu bi ngeen ko fale dafa may ay am ay enquêteur am ay juge am lépp lépp la am waaye am na mbir mu fi xewoon kenn ku ci nekk gàddu sa làmmiñ di wax la nga xam di wax li nga xamut di wax li nga yaakaar di wax li nga yaakaarut te dafa jot nag doomu aadama bu nekk soo demee bay wax nga mesurer say parole ndax kàddu yi mën naa gaañ mën naa lor ndax màndute jullit moom amatut ci ñun màndute amatut ci ñun waaye war nañu nag ñu bàyyi xel bu baax a baax tey xoolal ku mel ni bu Leye ñu koy wax Nabou Leye neen leen ñu analyser analyse boo xam ne kenn ku ci nekk dimbale ma ngir yàlla nga jàpp ne Nabou Leye mi may wax sa sœur la wala sa jabar la wala sa yaay la wala sa doom la pour nga mën a dégg li may wax la may wax nag c'est na rien moom moo ko def wala defut ko ndax fekkewu ma ta xaw ma wax dafa war a mesure waaye man Cheikh Ahmed Cissé en tant que défenseur u jigéen di ambassade u jéeg yëpp awma ci faram fàcce wala xaj ak seen duma ñëw gis wax ji ñëpp jaar nii ma ne noo damay xalab nabu duma ko def waaye tam su ma màndute duma may ma setal ko ndax dama fekk ñu fal gouvernement bu mel ni gouvernement Pastef président bi jub premier ministre bi nit ñi bëgg ko ñu am yaakaar ci ñoom man bokk ma ci ñu leen fa waaye lii la yàlla dogal li ëpp ci sénégalais ne ñoo leen doy jiital nit fakastal ko nag te mënu koo def te du ko def Nabou Leye moomu def neen ko dëmm def ko workati nit def ko reykati nit te wax yépp ñu ngi ko teg ci yaakaar naa ko ñii ñu ne ñëlee ñu ne ma bëgg nag képp kenn ku ci nekkoon doon wax su enquête bi demee ba setal na bu lay na nga am mandute ak honnêteté wàccee say vidéo ba mu set delluwaat ci live ba nga yàqee woon deram defaraate fa deram ndax mag mu toog ci pénc fenal as gor sosal gor impliqué ko waxal ko lu ñaaw boo demee ba xam dëgg war nga am mandute delluwaat fa nga ko waxee woon itte jang ca amoon di woote di live di vidéo di commentaire nga delluwaat fa tuubalaat ko say bakkaar waaye tam ndax mesurer neen dem neen sax ba famille Aziz balaa bu ñuy wax lu rafet ci ndabu nit ñi attaqué leen waru ñu wax lu rafet te koo ci tëroon paaka ci putam na ko wax ñu ne nabu ci la bokk soo dee dëgg la ñu rey la mu ne la xawma ci dara te su fekkoon ne réew mi am na yoon ñi ko wax yépp nekk ci réew mi yoon daf leen war a jàpp ndax yaa ngi jiitu enquête yaa ngi jiitu justice te dara leeru la ci yow moom bu amee ak bu amut maanaam li ma bëgg a wax mooy su demee ba ci càppaandaw bi ñu ne naboo rey fi mu nekk nii nii nii képp ku confirmer ne nabu moo rey ci kaso gi nga war a dem ndax amuloo ci preuve xamoo ci li ngay wax dara dara nga ci xamul waaw wax jooju nga wax ko te leeragul la rek tuuma la nga war a xool traumatisme bi muy bi muy dund moom moom actuellement nii en tant que doomu aadama yéen Sénégal xam ngeen seen bopp rëy ngeen wax bari ngeen wax mën ngeen a wax lu leen leerut ñeme ngeen sos ñeme ngeen fenal gor la preuve kenn ku ciy def ci yéen da ngeen di nëbbatu looy nëbbatu bu fekkee ñi nga nekkal mënuñoo fen looy nëbbu xam ngeen li may wax su wax ji neexee xam ngeen ko su naqaree xam ngeen ko waa léegi nag réew mu mel noonu ci mën a fen ak mën a wax ju wax ju bari réew mi dem naa dem a dem ba ñu am xam-xam ñemeetu ñoo wax parce que bu ñu waxee ñu amul xam-xam dal seen kaw ñi gën a rëy làmmiñ amul xam-xam ñi am xam-xam ñemetuñoo wax amul place bu ñu waxee réew mi dem ba nit ñi ñooy toog seen kër yi taal seen télé yi di déglu dofi di seetaan dof di aimer dof yi di partager dof yi ba bu ñu bëggee wax ak nit ñi dof yi la ñuy yónni pour ñu wax ak nit ñi communiquer ak nit ñi y a des problèmes problème boobu nag moo impliqué Nabou Leye Aziz Diarra ñu indi image am jigéen bu frustrée ne lan la luy problème bi Aziz na ñëppay dee mais loolu mooy dëgg inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna la wax ci wolof rek waaye dégguñu alquran waxul dara di nabu alquran la wax mais vidéo bi ñi amut ñi xamut alquran te ragaluñu yàlla interprète nañ ko ba ba vidéo boobu rek leen ko impliqué luy problème bi Aziz na ñëppay dee waaye inna wa inna ilayhi rajiun rafet njort ci sa moroomu jullit dara def koo gënul yonentu dafa wax mu ne ñaari jikkoo ngi ni dara gënu koo fare kaw imam hasan radiallahu anhu moo ko doon firi mu ne rafet njortu ci jaam ñi rafet njortu ci sa borom dara gënu koo kawe ci lislaam waaye jigéen ak ni dee méttee ak nañ xaritoo mu dee kooku mun naa taxaw sax ne ay <laughs> asi dee na la mel ni kuy reetaan fekk reetaanut frustration can you to anything nit mën nga frustré da mbëkk nit mën nga frustré def taatu neen Fatoumata Rajim Koka bi nekk Sweden topp na góor frustré ba góor bàyyi ko mu def taatu neen Angleterre tubaab bi jël ko constaté ne dafa dof ñu may ko kayitu dof moom lay taxawal re tuuti silib Fatoumata Rajim Koka ma ja Sweden kon frustré mun na lu nekk léegi lan moo tax ñun en tant que doomu aadama waxuma sax jullit man moom man xam naa ne man duma jullit man dama yées man waaye képp ku mel ni man it doo jullit waaye nen na ñun ñëpp doomu aadama leen ñun ñëpp ay doomu aadama leen waa nan la doomu aadama mun a dee ñaar ñu jege wante kooku frustré ne lan la lan mooy problème bi Aziz dana ñëppay dee ñu jël vidéo bi ne moo ko rey parce que lii safu ko waa ku dee saf nan la war a manifester kaay leen ma yéegal niveau bi tuuti neen dem ci yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantu génn na àddina ñu war koo tàggee Seydina Omar génnee jaasi ne ku ne yonantu dee na ma rey xam ngeen kan mooy Omar Omar mooy ko dëggu woon ba fekk ñuy julli di nëbbatu ci mu ne kenn du jaamu yàlla di nëbbatu ca kaw kon ku sa bàyyi julli Omar a tax dafa demoon ba bu jaaree duraat seytaane jaar góos seytaane ñemewul kàddu mu yar ruuxum ba ruuxum ba xalimbaam di yar géej dafa moon ndox moo xam ne Misra ca Égypte la doon daw ndox mi moo war a daw mu dem ci golf bi nit ñi mën a bay it is called the river Nile nowadays jamono bii ma nekk ak ñu ngi ko tuddee géeju Nile ndox moomu le balaa mu daan génn den daan seet jongama bi gën rafet nekk vierge xamut góor ñu sànni ko ci ndox mi ndox mi door a daw loolu mu ngi doon am balaa yonantu bi fi yonantu nekkee mi ngi am bi Ababacar Siddiq radiyallahu anhu nekkee àddina mu ngeen ba Omar ñëw ci xalifa ambassado bi mu fa bàyyi mu ne ko Seydina Omar at bi jotati na de mu ne ko at bi jotati na ci lan mu ne ko ndox mi war a daw ñu mën a bay mën a dund balaa moo daw foog ñu solal xale bu rafet bu mësta xam góor sànni ko ci ndox mi mu dee ndox door a ñëw Seydina Omar ne sa jox ma xalimba foofu mu jox ko mu ne ko jox ma big mu jox ko mu bind mu ne ko eh yow ndox mi leetar bii mu ngi jógee ko ci jaamab yàlla bu tudd Omar su fekkee ne yow yaa am kàttan di dox ci sa ndogal yow toogal ñun soxlawuñ sa ndox waaye su fekkee ci kàttan yàlla ngay dox doxal dem ci jaami yàlla yi aw ma jigéen bu ma la jox aw ma dara lu ma lay jox ndax jaamu ci dëgg kenn méritoo ko ku dul yàlla ñàkk a jaamu leneen lu dul dëgg Omar du ko fekke mu jox nit leetar bi ne soo demee ba ca ndox ma au lieu ngeen sànni ko bakkanu doomu aadama jox leen ko leetar bi ñu sànni ndox mi ci leetar bi ndox mi daw ba romb ko ba tey li may wax ku ko weddi jëlal avion dem Égypte di nga fekk ndox mi di daw te du taxaw kooku Omar ibn al Khattab biñ ko tàggee yonantu dafa génne jaasi ne ku ne dee na mu rey la yonantu mënta dee loolu mooy frustration Seydina Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu mu baax mi mi nga xam ne moom la yonantu sa loxoom ak loxoom moom mi nga xam ne ci histoire àddina moom képp moom mës takk ñaari doomu yonantu ci àddina kenn mënu koo def kenn mësu koo def te du amati baat la tukki Seydina Ousmane dañ ko ne yonantu dena tànk ya bañ muy raam munta dox that is what we call frustration shock total disappointment kon su fekkee ne saxaaba yu mag yi yonantu mu sell nii yar leen bañ sell ñoo ñoom leen mën a tàggee yonantu Omar génnee jaasi daan ku de ku ku wax ne dee na ma rey la Seydina Ousmane di raam di wër naan ana mbedd yi jàkkaarloog suuf si naan ko yow suuf ñeme ngaa lekk yonantu bi yow di nga nangu ñu sul yonantu ci yow kooku dem na waa Nabou Leye nag moom ñu tàggee ko xaritam mu frustré ne lan mooy problème bi Aziz dee na ñëppay de ñu ne ko yaa ko rek parce que yow da nga ne Aziz dee na ñëppay dee waa suñ mànd woon jàppee ko suñu bopp dañuy xam ne ah li mu waxee de frustration rek la te doomu aadama bu nekk dee frustré nen ko jàppal ngant ba pare wóolu suñu justice wóolu àttekat yi toog noppi bëgg lu rafet sax mënoon nañu yóbbu ci yàlla bu mu ci bokk waaye Aziz mi gaañu yàlla na xippee na su ko defee ne ñun ñi fi toog ñu war a xalaat nag Aziz ni mu demee ñu reye woon ko jigéen bu biiroon di ko jamate ngir xaalis ñu rey xale 14 ans ñun ñi des di dund te suñ bakkan xamuñ fu muy yem nan la ñuy def ba dee gi Aziz de dootul amati de we need the conversation waaye senegal du réew mu organisé du réew mu am tànk bay dem réew mu def taatu nen la réew moo xam ne cin buy bax la fu ne la tàngee au lieu que ñu nekk ay nit dajaloo ne ah musiba bi de am na waaye wax ci léegi teel na wóolu naa suma njiitu réew wulu naa suma justice maa ngi toog di xaar fan la wannentu di mujjee ki gëtam waaye ñun ñii nag nañu toog waxtaan lan mooy lan mooy yoon bi pour rey gu mel nii bu ko kenn sañet déegu ñaaw gi bu mu amati buñ ko déggati ba di ko gis nan la ñuy def ba ndaw yi seen bakkan buñ ko rey mel ni kuy rey ganaar su boobaa ku nekk taal sa plateforme ne man de li ma gis mooy lii li ma gis mooy lii invité ñu am xam-xam ñu waxtaan waaye loolu safut sénégalais moom taalal sa live wala sa téléphone di ko fen mu xam ne da ngay fen muy tappati di reetaan loolu moo ko gën a neex nga indi waxtaan bu tegu ci xam-xam ku ne mën a wax li nga bëgg a wax loolu safut sénégalais moom xamut loolu bëggut loolu waaye tey <coughs> imagineel ñi ci wax yëpp su fekkoon objectif bi ñett la mille personnes ñu ngi may seetaan kenn ku ne na def benn faatiya ñaanal ko Aziz ak Waly benn benn faatiya benn benn bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin amin yal na yàlla jéggal Aziz ak Waly jéggal bépp jullit bu fa jiitu amin trois mille trois mille cinq cent personnes bu ko ñëpp defee xam nga ñaata fatiha trois mille cinq cent fatihatul kitab waaye yàlla méttiwut billaay yàlla méttiwut te jëfewut fi mu nekk nii bu fekkee bi ma koy jàng yéen ñi seetaan jàngoon ngeen Aziz ak Wali am neen tey trois mille cinq cent fatihatul kitab te benn bu ne mën na leen a yërëm wala li ëpput solo tuumaal gor ëpp solo tëj lu nit foog ñu nekk nandite yàlla da ngeen naxanteeg moom di maslaak moom di tooñ di jéggalu hmm? di féttarlu rekk ba mu dem ba xam ne matoo jaam kese nga mu bëgg la nga bëgg ko yàlla mettiwul yàlla mbiram jafewul donc man li fi ma taxaw man te ma bëgg yéen ñëpp ngeen taxaw fa yéen nante yi may topp mooy Nabou Leye dafa innocent fekk attekat yi amee atte bi defuñ seen investigation def seen enquête ba ne Nabou moo def neen jàpp ne dafa innocent te ñu sóoraale doomam ju jigéen mental health am ak psychologique nga topp internet bi foo tourné ñu tam sa yaay dëmm def ko noo yàq sa der gis nga iñaanu sénégalais daf koy puus ba mu def lu ëpp bés bu ñu xamee ne nabu moo rey ba moom ñu enquête ko ba avoué ne moom moo rey suñ ko waree tër di ko rey neen ma jox paaka bi man ma rendi ko ndax ku rey ñu rey la waaye feeg loolu amut dama bëgg yéen nandi tey laay waxal de yéen ñi nga xam ne xam nga man forcé wu ma ku ma seetaan woowu ma kenn seetaan man ku ma bëgg seetaan ma ku ma bëggul di génn neexlewuma kenn am na ñoo xam ne man mii lañu bëgg man la ñuy xaar man ñooñu lay wax bu leen kenn yóbbu ci bàkkaar bu leen kenn yóbbu ci lu leen amalul njëriñ neen jàpp naggu ragg ba mu set sang ba mu set solal yére maslaak moom taxawu ko surtout yéen jigéen ñi gis ngeen yéen jigéenu Sénégal man dama leen yërëm ndax doole bi leen lislaam jox yépp fenal neen leen ci turu lislaam ba nangu doole ngeen ëlbatiku yéeni neeni jigéen ngeen bañante yemu leen ci bañante di xeexante di xeebante di xuloo ci seen biir war ngeen a toog yéen ngeen ëpp ci société sénégalais dee am dee am na kenn xamul kan la ñu tudd ci góor waaye ngeen nangu seetaan ñu impliqué jigéen ba mu ëpp doole ba yéen ngeen koy seetaan man duma ko seetaan fii mu nekk nii kenn defagul ndax leeragul kañ rey xam na ko ko rey ka rey xam na ne moo rey lu tax mu rey ko xam na ko yàlla fekkee na ko man yàlla xamaluma ci dara waaye Nabou Leye moom fekk justice juge bi taxawul na ma moo def man Cheikh Ahmed Cissé ak nandite yi may topp dama bëgg ngeen rakas deram ba mu set di ko massawu ngeen sóoraale ndeyam ji ko jur war a toog ci askan sëy ba màggat fu taal téléphone yi ne sa doom moo rey méttiti xol boobu sóoraale leen bu doon seen ndey ngeen xool doom ji bu fekkoon ne yéen seen yaay leen ko doon def lan ngeen di yëg te xale la di seetaan la ah, dañuy dem bay ta photo mais normal dañuy dem bay yëkkati photoom taf ko nii waa léegi bu fekkoon na bu moo léegi nee na bu moo bu fekkee na bu moo rey lan la ci yooni doomam wuti bàcc seeraas mu amal doom lu ci yoonam sénégalais mooy ñëw tooñ la ba pare ne àq di walla dal daf laa mooy ñoom dañuy tooñ ba pare jàpp ne ñëw ànd ak yàlla mais yàlla yoonam nekkul ci loolu bu waxkat yi nekkul nit yéen déglukat yi nekk leen nit sénégalais fen fa moo ëpp valeur wax fa dëgg moo tax waxkati dëgg yi ñooy pauvre yi fenkat yi ñoo am xaalis Sénégal nga ñëw rek di wax dëgg di jub di jubal <coughs> boo amee doo am xarit bu baax doo am safoor bu baax parce fen ak naafeq mooy business bi gën a dox senegal lan moo tax ma wax loolu man xam nga su ma waxtaan lu ma wax dama koy leeral ma répété li ma wax te jox leen ci leeral yu leer nañ dama ne senegal fen ak naafeq moo gën a dox boo duggee ci politique noo gën a mën a fenee rek la sa post di gën a rëyee côté administration du xam-xam ak compétence ñi am compétence yëpp ñu ngi toog ñi ay consultant leen ñi nga wol Bank ñi nga feneen waaye compétence dëgg nekk ci nguuru Sénégal doo fa yàgg muy benn naa feq même ci diine sax boo bëggee nekk oustaz ñu lay déglu da ngay doon naa feq télé mën laa jël nit ñi mën laa déglu waaye boo yemee ci li yàlla wax képp ak yonantu képp kenn du la seetaan kenn du la jël kenn du la déglu faa nga yokk ci lu ci bokk booy jaay ni la charia waxee ab njaay munoo koo jaayee senegal mu jar kuy jaay du waat kuy jaay da ngay peser lu mat xam ngeen ne da di jënd yàpp ñu jaay kilo nga peser kilo sa kër du man du mat riba léegi da ngay bokk natt sax ñu ne la taati susu noonu nan la tudd su dee gàm bi taati susu leen koy maanaam nga bokk natt boo waree am un million boo teggee un million bi manqué loolu nu mu tudd am na nu na nu mu tudd de Sénégal taatu kees taatu kees la tudd loolu riba danga da nga ne leen teg dix mille ku sotti am un million kiy teg dix mille ba pare war a sotti mënta sotti. dañoo dem ba loolu ñu légalise ko mu normal loolu moo tax réew mi métti ku ci bëgg a demit muy métti kon yéen jigéen ñi maa ngi leen di ñaan ngeen bëggante te jàppante te fonkante ndax loolu rekk moo leen mën a dimbale lu mooy bëggante fonkante mënut leen a dimbale mënut leen a jàppale ñu ngi ci weeru gàmmu weeru sell te baax lool ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ma di leen fàttali ne bokk na ci li mën a dimbale as gor mooy tey su gàmm jotee waxal ne man de jikko bii mi ngi ci man jikko bii mi ngi ci man waaye liñ nettali ci yonentu sallallahu alayhi wa dinaa jël benn jikko ma boole ko sama bopp pour su ëllëgee ma am jikko boobu boo ko defee ten years am nga fukki jikko yonentu sallallahu alayhi wa sallam te yonentu ku roy ci moom juróom-ñaari jikko wàlliyu nga waaye ma wax leen ne weer wii nii bul téye kurus nii di wër déedéet foo toog rek waxal allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim képp dee ci yem allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim comme yéen ñàkk ngeen itte ba salaatu ala yu bari mënu leen koo mun waaye mën ngeen a xam nu ñuy dawalee oto mën ngeen a xam nu ñuy daanalee góor mën ngeen a xam nu ñuy doxaanee jigéen mën ngeen a dugg ci gaal yi dem fa Europe mën ngeen a jaar ci Nicaragua bi ak ni metti mën ngeen a tiim ceeb togg ko bokk ko lekk caalit waaye yéen salaatu ala nabi mun leen ci dara suñ waxee rek su surtout suma mbokk baaxalal ma waxaat ma ko nga ne allahumma salli ala naka ala naka amul li ngeen nekkee du dëgg du yoon jéeg yoo xam ne ku ci làmb mu fees ku ci làmb mu dëll suñ leen ne du ngeen jullit ngeen mer te yenn jara yenantu jaralu leen dara kaa buñ fi teg mën ngeen koo traité xam ngeen A ba Z déedéet yow kon loo ki yow Aziz Nja ba ku tas xam ngeen ko kuy doxaan xam ngeen ko yéen a raw inspecteur raw oparloo waaye su ñëwee ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi sa live bi yaa ngi doon ci yonent nga ne allahuma salli nan affaire yooyu daal dama koo xaw a fàtte ma ne nga vocal ma ko du ma vocal kenn kenn laa vocalu am leen itte ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo leen jig di moo leen jig ku leen joxoon góor ponkali góor buy nappe ku ko tëjeeg yéen une de temps su yuuxuwul rek ma dee xam ngeen point yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp oh. ponkal mu dàq anyway ci àddina buñ ko tëjoon ci néeg ak yéen une de temps mu yuuxu dana maye ndeyam maye kër gi ah, loolu moom xam ngeen ko mën ngeen ko waaye julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa leen ko war a vocal <laughs> koo leen yàpp jigéen daf leen di romb taat yi baax nga ne ko booy kii dinaa ko jël mu ne la mënoo ci dara mu jaral la nga nekk malayka wax ju neex jaral la nga nekk at ATM machine joxe mu jaral la nga gën a baax xol bu amee doom ngay fob di fóon lépp ngir jot ko waaye salaatu ala nabi moom den la koy vocal moom di nga wër Sénégal di politique ne réew mi la ñor waaye foo toogee màggalu Touba wala Tiwaawan pour jàng ayab alquran yàqu ko mbind Maodo yi xamoo ci dara te jaar nga université ba am quarante et quelque temps campagne bañ jox la réew mi te mun a wax aaya bu baax tudduma kenn eh am leen ittee am leen ittee war ngeen a rus fu mu nekk nii war ngeen a rus ku rusut doo gor hmm? fi nekk nii ah yàlla baax na <laughs> kaa boo fi nettali ñu rek ci fiir na la demee woon nii la demee waaye tey bu ma doon jàng alxuraan juum sax ñu naan est-ce que dafa jàng nag sëñ bi nii xam-xam lan fekk maa ngi yàq aaye xaw ma dara ci li may wax gis ngeen bu seen internet jeexee wala seen téléphone fay ni ngeen di amee itte fu ne ngeen rappi rappi su ma téléphone fay yow abal ma chargeur yow ay yow nu may defati kaay may rëcc dëgg la baax na c'est bien beau kaay moom pour wéttaliku la rek waaye yonent bi moom lu mu leen jaral sallallahu alayhi wa ay seytaane ngeen ay naafeq ngeen yonent bi jaralu leen dara te kuñ ci ne doo jullit nga mer génn leen ci li ngeen nekk am leen kersa xam leen ne suñu sëriñ yii baax neen de sëriñ Tuubaa amul moroom kenn du moom Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu ak njabootam kenn du ñoo Baye Niass moom booy konte mag ñi doo ci boole yàlla moom waaye ñoom ñëpp ay mbindaan leen ci yonent bi de ay mbindaan leen ci yonent bi te ñoom nekkuñ ci bëgg seen bàyyi ak seen maam yi bi leen bëggoon am leen fayda bëgg yonent bi xanaa xamul leen ne salaatu ala nabi boo ko jàngee soixante mille fois doo dem safara déglu leen xaddis dafa wax mu ne képp ku julli ci man yonentu moo ko wax du man mu ne soo ne allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim yàlla julli ci yow fukki yoon nga def ko fukk yàlla def hundred mooy téeméer cent nga def cent yàlla def mille nga def mille nag yàlla ne tu sais tu tu vois yow <laughs> da nga ëpp la su ma julli junne ci yow xajut ci yow xam nga ni ñuy defam nga ne waa mu ne yonentu ne katta fii sa mbagg bi ak suma mbagg bi ba aljanna yonentu xam na àdduna de su boobaa gis nga kaay yi ngay topp nii yëpp yàlla daf la koy baal parce que yonentu moo ko wax a ah, kata fi kata fi ala baabil jën na janna min haysu baab fu la neex ngay duggee al na waaye yéen déedéet mën ngeen a toog semaine du ngeen julli ci yonent bi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku ci góorgóorlu ba góorgóorlu julli ngay def yéen ñi nekk Europe nag yéen a gën a yéesati moom bu ngeen demee julli ji pré engrais ngeen di jox yàlla julli bu gaaw nag boole ko xëxët su ngeen di pare fokk kaale gi woy sonn naa mais di ngeen mën a jëlaat téléphone bi nekkaat ci internet bi ñaari waxtu waaye julli gi moom sonn ngeen ñi nekk amerika fii <laughs> voilà dañoo def seven to seven liggéey bu bugg dee suñ ñëwee toog ci toogu ne dañuy julli parce que seen tànk yi day métti dañoo sonn ñun kenn ngeen yëpp kenn ngeen yëpp li may wax yéen ñu baax ñi laay wax mais ñu bon ñu mel ni man ñun man moom man duma ma julli man moom man man du ma julli man man waxuma suma bopp yéen ñi baax bëgg lu baax di jéem a def lu baax yéen laay wax waaye man dumay may julli man moom ku nekk xam na ko man dama bon dama yées man suñuy compter ñu baax ñi duñ ma ci boole man bokkuma waaye yéen ñi bëgg yàlla laay wax tey góorgóorlu ci mbiri yàlla man yéen laay waxal pour ngeen gën a baax yéen laa bëgg ngeen baax ñi nekk Europe ak Amérique gën a bon da gis ko war a julli mu ne mu ngi tardé liggéey hmm. Hmm. <laughs> maanaam liggéey ba mu war a defi ñu fay ko mu dund ci mbirum àdduna moom mu ngi koy tardé su jullee day tardé <laughs> day day liggéey ba pare <laughs> door julli gis naa loolu waaye nag ma wax leen àtte lislaam bu fekkee da nga dem liggéey fa ngay liggéey mënoo faa jullee wàcc na la mën ngaa ñàkk julli pour ñaari mbir benn bi liggéeyukaay bi bëgguñ ko ñaareel ba liggéey bi mayut a nga julli te bu leen fàtte ah bu boo nekkee ci liggéey signé contrat bi bàyyi liggéey bi ngir julli ji bàkkaar nga def parce que yaa ko signé bu dee jullit nga tam màndu ba nga koy signé nga leen war a wax ne fu tusubaar jotee bokkut ci liggéey bi ndax waxtu bi moomu ma ko suma boroom moo ko moom nga signé ko waaye sign a contract to do a job you leave the job and go to pray bàkkaar nga def parce que da nga fen da nga wor baaxut baaxut xam-xam pire laay wax damay bañ nag ma wax ba pare ngeen jógee fi dem di julli ji rek ci liggéeyekaay yi du demee noonu as a muslim you have your own time am nga waxtu boo xam ne yaa ko moom am nga waxtu boo xam ne moomoo ko muy julli fajar julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee moomoo lii yàlla moo ko moom sooy liggéey tisbaar ak takkusaan war la faa fekk ci interview bi wax leen ne ndax di ngeen ma mun a may ñaari ten minutes yoo xam ne dama koy jël because dama bokk ci diine bu tudd lislaam te den ñu julliloo wala nga ne leen ndax suma birig bi mun naa koo xaaj instead of ma jël 30 minutes ma jël ko ñaari 15 minutes mën cee jàpp soo bëggee ngalawal nga ngalawal soo bëggee saw nga saw defaraat sa bopp ci duus bi jàpp ba sell a tahaara taxaw julli ñaan yàlla dem sa yoon continuer sa liggéey lii moom nangu neen ko waaye bi ngay interview bi ngay sign contrat waxtu bii nga sign ba waxtu bële ci diggante waxtu bi nga ne dangaa bëgg yàlla ba bàyyi ko fa dem julli ji comme ni ñuy def Sénégal nga dem hôpital ñu naan la dafa julli that's bullshit that's complete nonsense unacceptable du dëgg du yoon du dëgg du man moom ku bon ku mel ni man man dama fu nekk di waxaale julli man naa liggéey ñu fay ma ma dem ndax man bugguma yàlla man dama yiis su ma yoon ci waxtu lislaam beeg li yàlla dogal man su ma yoon nekkul ci loolu waaye yéen ñi baax te bëgg lu baax yéen laay wax bu leen xool ci man man dama bon bëgg lu bon nekk ci lu bon di def lu bon waaye yéen dangeen baax yéen dangeen ragal yàlla dangeen bëgg ëllëg su ngeen di dajeeg yàlla ngeen dajeeg yërmande yàlla yéen loolu ngeen bëgg moo tax may wax ak yéen rek hmm? léegi nag su ngeen compter su ngeen compter ci weer wi ñaata yoon leen ci wax ci deru nit ñun moderniser nañ ko ba tuddee ko kaa mais jëw la jëw ñaata yoon leen jëw ana lan mooy jëw mooy nga wax ci nit loo xam ne dëgg la waaye nekkut fa masalan xam ngeen na man naankatu sàngara la man damay tuux yàmba damay naan sàngara damay jël drogue nekkuma fa ngeen ne Cheikh Ahmed Cissé naankatu sàngara la jël jëlkati drogue la tuxkatu yàmba la loolu mooy jëw waa bàkkaari jëw xam ngeen nu mu tollam bàkkaari jëw nit ku jël yaayam diri yaayam ba ca mbaam xuux ya fañ nekk mu simmi soutien yaayam simmi yére yaayam simmi silibu yaayam ubbi tànk yaayam yi jaar yaayam fi baayam di jaar ak moom ci néegi mbaam xuux yi benn ñaar ñett dix vingt trente thirty eight thirty nine forty times ñeent fukki yoon nga def ko sa yaay moo tolloog benn cas la ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye yéen ci yéen ku sa yaay doon sangu sa ñemewoo dugg ci wanag bi ngeen am kersa jox ko cër ak fonk ndey yéen yéen ñu baax ñi may waxal bu leen ma xool man man dama bon yéen laay waxal kenn du ko def bàkkaaru kaa bi ngay def moo tolloog loolu 40 fois kon nga xool yow ñaata yoon ngay kaa ci sa clavier bind bind ci bàkkaari kaa la bokk bind bi moto képp kuy commentaire seetal la ngay commentaire daggan na wala xaraam na bu dee faale woo yàlla na yow waxal la ne rek nga xool ci bés bi ñaata yoon ci semaine bi ñaata yoon ci weer wi ñaata yoon nga gestu sa borom ndax yow bàkkaar yooyu yëpp bu la ko yàlla jéggalul àttan nga waa su fekkee ne nag mënuñoo bàyyi fen mënuñoo bàyyi jëw mënuñoo bàyyi sos mënuñoo bàyyi sàcc mënuñoo bàyyi njaalo neen ci boole salaat ala nabi julli ci yonantu rek sallallahu alayhi wa sallam at least boo boo ko defee fukki yoon ci bés bi baax na nga toog rek nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim baax na wala tey foo defee benn bu bon waxal benn salaatu ala nabi rek su la leeree na fen nga def nga bàkkaat waa tourné rek ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñaari advantage moo ci nekk benn mooy wa at atbahi sayyi'ata alxasanata tamhuha ginnaaw soo defee lu ñaaw nga teg ci lu baax dafay far lu ñaaw li bàyyi fa lu baax muy benn njëriñ ñaareel ba mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bi ngay wax ci sa biir xol bi su dëggoo rek dootoo def lu bon daf lay të buñ naagu mukk ci yërmande yàlla sunu borom buñ def bàkkaar ba tiit ba foog na yàlla dootuñu baal wala ñun deeneen bu ñu jéggalu yàlla ba foog na yàlla pare na ci ñun yàlla musta pare ci ñun waaw ah, man xam naa ko yàlla ko ko xam la du pare ci ñun ba àdduna tukki kon loolu laa bëgg ngeen di am yaakaar ci seen boroom Baay Ñas dafa woy mu ne muhammadul mustafa awlaahu mawlaahu yàlla muhammad mi yàlla tànn na ko awlaahu te mu méngale ko mawlaahu boromam mawlaahu te may na ko kullal ataaya bépp may wa adnaahu wa axlaahu laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah mu ne muhammadul moustapha muhammad mii al moustapha ku ñu tànn la tànn gu sell nag awlaahu mengale na ko mawlaahu boromam ku lal ataya bépp may wa addinaawu te mu jegeel ko wa alaawu te mu kaweel ko Baay Ñas moo wax li mu ne muhammad mii may tànn may woy man Baay Ñas Moustapha mooy ki yàlla tànn mu gën a rafet ci lépp ak bépp anam bu nit mën a rafete awlaahu méngale na ko mawlaahu boromam lan ku la laa taayaa bépp may kaay leen nag ma wax leen may yonantu bi sallallahu alayhi daf koy may di ko may di ko may di ko may di ko may ba yegg ci walla wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yàlla egg na foofu ak yonantu bi dama lay may ba nga ne ma doy na may yi ma la may doy na awaawu suma haddaawu fahtada nafarun bi hadi wa bu'idal faxri aghnaa mu ne aw awaawu tàpp na ko su ma haddaahu topp mu jubal ko fahtadaa te jubee nafarun ab mbooloo bi hadyihi ci njubam ga ak naawu tam woomalal ko wa bu aydal faqri ginnaaw bu mu ñàkkee bàññee sa dégg alxuraan te mën a woy lii de ay alxuraan la nii Uh-huh. benn bu ci nekk ay ay alxuraan la moo tax it is very dangerous nit toog rek ne eh, Baye Niass bàkkaar la nekkoon Serigne Touba bàkkaar la nekkoon Maodo ci bàkkaar la nekkoon loolu biddaa la du sunna it's very dangerous I think balaa ñuy régler sunna jàmm ñun ñu régler suñ sunna ñun suñ bopp ndax li ñu war a wax ñu ngi koy wax ndax li ñu war a def ñu ngi koy def suñ diggante ak alxuraan nu mu mel suñu diggante suñu suñ borom lu mu ñu jaral suñ diggante ak yonent bi lu mu jaral suñ diggante suñu mbokki jullit yi ak ñu dul jullit lan la ñu jaral lan leen ciy def bu ñu reglee lii ba pare ñu réglé suñu jabar réglé suñu doom door a réglé Baye Niass waaye nañ rek ne ah ñoom Baye Niass booy loolu bidaa la du yow wax ji ngay wax du sunna xoolal wax yu yii Baye Niass wax yonent bi mu ne boroom bi tàppe na yonent bi jubal ko jub gi yonent bi jub am na mbooloo mu ci jube saxaaba yi yépp ngay dégg nii ñu ñu ñëw ci lislaam doon ay sang ba ku leen tudd ne radiallahu anhu ay caga leen woon ay bandi leen woon ay reykati nit leen woon loolu mooy dëgg ci histoire waaye nag yàlla tut nga tudd benn saxaaba ne cagal loolu benn jullit du ko def ndax du cër parce que lañ nekkoon lu bon la woon yàlla jéggal na leen ba indi leen ci mbaax radiyallahu anhu rek nga ci war a teg waaye dafay dëggal ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko tàppe ci moom jubal ko njub goo xam ne ñu bari ci leen jube jubalut ko yem ci daf koo woomal daf ko may xam nga lu ci bàññees teg الله تهره والله أرسله للخلق طرا فما في رسل شرعه bu subaa insha allah ngeen di ñëw ma bégal leen ci yonent bi wax leen ci lu ngeen bëgg dégg ak lu ngeen mësta dégg lu ngeen bëgg a dégg ak lu ngeen mësta dégg cent pour cent yonent yàlla Muhammad rekk la du ngeen bari nag du ngeen bari ndax Sénégal ak Gambie ñu ne jullit yaa fa ëpp ñu ne jullit yaa fa ëpp donc soo ñëwee di wax ci yonent bi. Hmm, nit ñi duñ bari waaye na ngeen xam ne njëriñ képp la bu subaa 19 heures allah ngeen ñëw fii maa leen jox rendez-vous pour cent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque jour ba gàmm gi jeex amut nga ne amut ma ne amut ñu ne yonentu bi rek di leen jox ay ñaan yéen jeeg ji parce que seen jëkkër yi joxeetuñ dépense amuñ njëriñ ngeen mën a am wërsëg yéen jéeg ji tas ak ñi làmb ak ñi amagul jëkkër ak ñuy sëy ñii sëy di sëy ak góor ñu bon ñi ñii sëy di sëy ak góor ñu ñàkk njëriñ ñi ñiin ñëpp dinaa leen jox ñaan yoo xam ne day dalal seen xol day dalal seen xel te jàmm rekk ngeen deem incha allahu rabbi kon bu subaa dana leen wax yonent bi leeram juddoo nan la naka la yëpp laa leen di leeral ba seen xol sedd ma zikaral leen noonu laa koy jàppee yéen bët bu set timis 19 heures heure Sénégal 7 o'clock Gambian time 3 o'clock New York 12 o'clock Seattle 8 mm, Angleterre 9 France chaque jour ba gàmmu gi jeex leneen li ci des mooy yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñëw di ma seetaan si xam leen ne man maa dindi sumay modérateur ba pare di soril téléphone bi suma bopp ma bëgg ngeen xam ne alxuraan mu fii waaye am na ñoo xam ne seen wërsëg bokk nekku ci duñ lekk ci alxuraan duñ naan ci alxuraan mënuñ cee jàng dara dañuy seetaan rek man ndàmb laa boo xam ne yàlla moo ma wàccee pour jaan ñi jëriñu ñi ci bokkul duñ ci mës a bokk su ngeen ñëwee di seetaan seetaan leen ma man déglu leen ma ku fi commentaire gis naa ko man la neex commentaire bi jàll bloqué wu ma benn baat bloqué wu ma kenn kenn ku nekk na ñëw wax lim bëgg a wax waaye yéen su ngeen fi nekkee naan bàyyi leen loolu noppi leen yow ñoo ngi lay distract da ngay am fayda gis nga man ni ma amee fayda man damay ñëw wax li ma bëgg a wax sañse li ma neex ambiance kafre xam nga wax mu jeex ma dem yow danga nga fi ñëw pour Cheikh ci Cissé déglu ko seetaan ko mu jeex nga dem kii commentaire bàyyi ko mu commentaire moom loolu la ci bëgg loolu la ciy wër may ko loolu waaye di moment nga bàyyi Cheikh Ahmed mi ngay déglu topp ko naan ko amal yar bàyyi leen nit ki bu leen ko wax lii yow ñu ngi lay distraat you a a loser man vainqueur la gagné naa ba pare mooy fexe naa ba bi ma taalee moom ñëw na moom te oowu ko maanaam bàyyi na lépp lu mu doon def nekk ci man di ma seetaan loolu moom fexe naa ko moom je suis le gagnant I am the winner am na ci xam ne moom buggut a dugg sax ñu xam ne ñëw na mun sa biti di seetaan maa ngi koy gis mais loolooy nandite te nit kooku noonu di commentaire commentaire yi muy commentaire mu ngi mu ngi dëgëral agonisme bi na tudd wax agonisme xaw ma noonu mu ngi partager live bi ñeneen ñeneen di ñëw parce que mu ngi commentaire trafic mu ngi am kon kooku wàññiwut la dara te la muy wax su dee mbaax yéen a ko bokk su dee mbon ci moom la jëm imaginel nag algorithme algorithme bi daf koy yóbbul ci ñeneen parce que mu ngi commentaire yeneen comprendre dama bugg suba yéen ñu yéen fans yi laay wax de taalibe yi nante yi ku commentaire aju leen loolu yéen nekk leen ci man rek ma nekk ci yéen ñu nekk ci yonantu bi buñ paree bànneexu gëm yàlla bi ngay yóbbu yóbbuwaale mbégte mi ngay yóbbu sa xol ki doon commentaire amut loolu te mënu koo nangu il faut ngeen di use mind yi da di doon nant ba seen àdduna baax sampu rek teg lu xeere dégg ngeen waaw bu bu leen faale kenn yéen ñëw leen nekk leen ci man rek bu ngeen kontaanee rek bindal leen ma kër bindal ma sallallahu alayhi wa sallam ñoom nga bàyyi leen foofu parce que Sëriñ Tuubaa indi na fi may gu rëy ay senegale taxaw na ci bàkkaar la nekkoon biddaa la loo ci mën Maodo indi fi may yu rëy nit taxaw ne bi daal loo ci mën Baye Niass indi faydu ñu ne loolu du dëgg loo ci mën dara ci mënut yàlla def Cheikh Ahmed nam ko defee ba indi ko mu jàkkaarloog jaam ñi di toj xeeti xam-xam yoo xam ne ñoom seen sëriñ amuñ ko yéen seen sëriñ nante bi am ko ñuy commenté ngeen bëgg ñu distract leen nga naan leen bàyyi leen neen gën a wax da ngeen leen di may zéro di toog comme sa c'est rien fait loolu rek la ñetti abdou yi ñëw na parfum yi ñëw na ñu toog sol ko comme ça j'ai rien fait yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu neexee ci xol ñu war a toog jàkkaarloo moom di wax ci moom comme ça j'ai rien fait mais lii lii lii lii boo sampoo dafa fees waay ah, ah ñu ngi tàggatoo ba suba dama am appointment mu may dem li ma sañse kum neex ma may ko sa baay wala sa jëkkër <laughs> am na jéeg yu amul jëkkër boo leen ko mayoon xoolal ndeysaan Pape gane lan alaaji lan alaaji Malick Itali suma taalibe la <laughs> moom leen tuddee alaaji Malick Lo mu baax mi next doomam man mii la koy tuddee Maama Linguère Sarr naa la suma xarit bi yàlla sa jàmm yàgg boobu su ku laal laal Amina Diagne Khady Tipo <laughs> Zeynab Gore Aji Ami Diago su may nit ngeen comme ça c'est rien nga ne borom lan ngay wéy ndeysaan Mama Nding nuyu naa la yegg ba ca Minnesota dégg naa ne daal ah yàlla na jàmm yàgg ndeysaan def ci am New York yàlla may la borom kër gu baax ay ki ci des ndeysaan yàlla jàmmam yàgg <laughs> naa ko <laughs> waa Seattle Everett nuyu naa leen dëkk bi neex na fàddi ba demoon na Màkka moo moom héritage restaurant yàlla na jàmmam yàgg Khadija mooy boroom Dija Sketchup yi yaa amigee duma la fàtte di suma soppe bi ma yëg leen ne Pa Omar Diak taawam bi dem na school tey high school den koy fete ana Diak yaa ko fa am samp rek doo am wujj Fatoumata suma doom yëg ngeen ne am na salon bu ees ah nit ñi ko den foora den di lee tudde maa ngi dalal seen xel de yëgaloon naa leen fii ne takk naa jabar am ñu wax ne dinañ génne suma photo jabar ba tey génnewuñ benn foto te suma jabar yóbbu naa ko ba salon mbàkkatu kont mu létt létt ñëpp gis ko <laughs> te ba tey photom génnut man lu génn ci man man la neex nante pire <laughs> adama jëw suma yaay Chéri Yang maa ngi di la ziar sa doom moo am di most reliable money transfer in Gambia tey sir rakk la Moussa Naaj mu nga Atlanta borom ñaari jabar yi ànd la war na baax ci moom de ndeysaan suma doomi ba Abdou Ñaari ñu nga Atlanta ñu dégg la série Brad wax ñu mer ñu ne naa leen kool ma ne ñeme ñu ma ko den tànn den laa xas <laughs> fàttewu leen maa leen bañ a kool ajaratu leen dur suma yaay la di ci fayu dañ ci tooñ di ci fayu dañ ci tooñ dañ ci tooñ borom ànd laa borom seen bi borom faydu bi laay woo waaw dañ ci toog dañ ci toog dañ mu nga Alaska amutoon jàmm five minutes su nekk kool <laughs> mooy yaay Baby Fall ajaratu Awa Cissé moo joojo suñu yaay daf ma aaye wax ma dem suñu internet ba na ko damay zikar waxuma bilaay kenn bañu ma may jal ko suma sista la woon Kadijatu Njaay suma ex girlfriend la woon nekkatul léegi Ablaye Mbuub suma xarit la mooy borom Mbuub family GP dafa indi GP yoon bii nii da ko Ablaye ñëw nga ne laa ñu xam nga luñ ko jëppee xobi mbuum ak kinkiliba di ji ba yu Sophie Konaté moo ko moom bàyyi ko ko jox mus ngeen a imagine waaw gabi ya nee nañu yow si ya nee nañu yow dégg naa Maryland dëkk bu neex la te den mën gaan xaw ma ci dara dem naa fa daal Fatima sooy insist ba suba duma la jël Fatima I will not pick you you can keep on insisting and insisting but I will never pick you bu subaa see bi na koloog yonent yàlla Muhammad rek la ñuy waxtaanee keneen du ci bokk mooy suma yaay Alaaji Maalik mooy sa baay yow yaa ka baaxi baay Cheikh Ahmed yaa ka baaxi yaay baatin bi dang ci tooy Modou Moussa mu nga mu nga mu nga siyaatul ku baaxoon ci man la waa Minnesota nuyu naa leen ni ngeen di ñàkk xorom ñoom Anna Ndiaye <laughs> FC Modou mu nga mu nga New York ndeysaan dama ko fi noboon Cees ko mu bañ. ma ne suba ban suba ban couleur u jasneer ngeen bëgg ma solal leen bu ngeen wax am naa ko ban couleur moo leen neex pour ñu def ko ci yonent bi sallallahu alayhi wax leen ma ko rek bindal leen ma couleur bi dama sol ko suba. ali ña ko ak mbaxana blanc acum wax leen looleen leen wax baax na doomu yaay jëbilooy mane ma natuloo Pape Diouf daf ma yóbbuloon yére ci moom bu koo saaj jox ko jëkkëram mu def gauche def droite ma ngànk rek samp rek dëgër jot naa ci yére bi moom laa sañ ci démb yàlla na fanaan gudd loo ndaam siri da ngeen sol waayit bu ne muut toog jàkkaarloog yéen démb dafa am wax juma ma fi waxoon am ku ne ma dama foogoon ne man ngay wax ma ne ko déedéet man su may wax su dee yoo la yoo lay wax de dafa am jigéen bu tudd Oulimata Dieng nekk Lyon xaw ma ko xamuma mu sopp ma rek te yàlla tax ma sopp ko te yàlla tax ñu waxtaan ci farata ak dëgg ma ne ko kum neex nga sikkal ma man waaye duma jëflanteeg doomu aadama mu xeeb ma fii ak yaa ngi may xam lu ma lay wax dëgg lay doon duma la wor duma la fen ñu dox ñu waxtaanee mbiri sëy ba pare ma ne ko man de duma sëy ak benn jigéen te defuma test médical wan la ko yow nga def test médical wan ma ko ci suba gi mu soppi avi avis mu jox ma numéro baayam ma wax ak baayam baayam doon kilifa waa wax ju rafet wax ju yiw la wax ne loolu la bàyyi mu waxu dëgg ma jëndal ko bii one thousand three hundred du US dollars de mille deux cent euros pour mu ñëw seet si ma Amérique ginnaaw bu ñu sëy lam ma wax du dëgg ma woo bàyyam yónni oustaz Mouhamed mbay bu seen TV mu demal ma seen kër pour ñaanal ma soxna mu dem fa wax yi wute ma téye suma bopp am classe keroog laa ko gëj woo keroog laa ko gëj message képp ku ko xam nag bu la neexee nga wax sa avis ci man waaye ñun ñaar bi ñu jëflante su ma ko xoolee duma ma te lépp lu ma ko waxoon dëgg la te li ma waxoon du dëgg gënante ci ñaari nit nag ci jëf la ak wax kon su ma waxi démb ju du yow mais wax jii tey yaa ko moo tax ma tudd sa tudd tudd sant man du ma gaaruwaay su ma waree wax rek damay jaar ci digg bi su ma wax du ma wax kon li am sol mooy doomu adama bu mu mën a doon balaa nga koy juger rek nanga nga ko xam ku mu neex nga xalaat ci man lu la neex waaye jigéen bu ma mësa a jëflanteel danga may respecté ndax bu wax jotee danaa la wax bu jox jotee danaa la jox bu def jotee danaa def waaye jigéen nag buy nettali day wax lu ko arrangé def lii bàyyi la li man awma waxi suuf ak waxi waxi kaw waaye nag ñoom dañuy ñëw jëflante yow ba pare dem fen wala naan noo diw moo ma ne nii diw moo ma ne du dara man li ma wax def naa ko ndax doomi gor la ba nga xamee ne mbir ma jaxasoo na ka boole woon ak moom di Awa Njaay na ma annuleel billet bi ma ne ko suma ngor moo ko doon nangu mu koy bàyyi ba mu yàqu mu xam ne moom moo ko defut la mu waxoon moo ko defut loolooy gor thousand three hundred and fifty dollars fu ma fekk la may bàyyi man ci ku ma mën a dem ak ci lu ma mën a jëflanteel ci àddina either friends sisters brothers lu mën a doon mutual respect den koy share wala ku nekk dem fooruloo ba ëpp doomu aadama manqué wu ma ba matuma doomu aadama kon lii laa doon tàggatoo pour leeral ko ne waxi démb ji du yow mais waxi tey bi yow kon bu subaa ñu ñëw ci yonent Yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jëf kontaan naa ci yéen ñëpp ñu doon seetaan